mu waxaat ne us usjudu li aadama tahiyatan lahu wasjudu li rahmaani taabudan lahu waa ji na tekk mayit mën a tekk ba fii laa ko waxee tey sujjóot ga ñuy sujjóotal aadama yàlla mënoon naa changé vocabulaire bi ne hayyu li aadama nayu leen ko mais usjudu la wax ta lahu fee gannaaw rahmaan la mu ne usjudu li rahman taabudan loo qaala wa ma kon cheikhul xadim ma ne ñu fi ñu ko jaarale man man li ma convaincre loo du kafe gi comme ni ko ñenn ñuy waxee benn waaye dafa ñëw ne ma sa waa ji day day bàkku ma ne ko kan la mu ne sëñ Tuubaa mu ne ah. danaa ko feetu da mu ne ma xamoon naa ko billahi naan nga ji kafe gi ba doyal ma ne ko nga bàyyi fi ñëpp di ma attribué sëñ Tuubaa naa ma sawaa ji ma ne ko loolu laay feetu ma ne ko léegi eh, mu ne xol yi ma sopput xulubu man lam yuhibbuuni dee leen déglu bu baax xol yi ma sopput ala wajal ca wajal la tànn wajal mooy problème permanent boo xam ne tey subaa koy gën a métti gannaaw suba ren diwén a koy gën a métti gannaaw diwén moo koy gën a métti mu firi ko nag wala yulaaquuna maaraamu wala albaab wajal mooy lan Cheikh Ahmad ne mooy ñi nga xamee ne duñ dajeeg seen bëgg-bëgg buntu buñ ubbi it kàcc lañ koy def baatu wajal la la la la la mi koy waxeeti fee ñu proposé ko gannaaw way juróom kaay nga toog ci privilège ñu la ciy oo ngay bañ bëriwut wala gisaguma ko lu may ci moom xaalu li yarkan mu ne nee nañ ma irkan rukkoowal su jóotal ñan li abwaabi salaatiin yi taxawal ci bunti buur yi boo ko defee looy am mu ne taxus da nga am jawaïsa ay ay ay ay privilège tuuni kulla mahini loolu la wax ne moom la gis nga xaalu la wax mel ni loolu tubaab bee ko wax moom nag lu wax fa qultu xasbiya rabbi allahu akbar kenn du Cheikh Ahmad Bamba fa qultu xasbiya rabbi doy na ma sama boroom am na ñu bëri ñu koy wax waaye soxna sa mooy seen boroom xasbiya rabbi jooju ñoom xasu biyee sama soxna la ñuy wax ndax loo jaar ci ñoom ñu bañ boo jaaree sa soxna sa am ko moom nag kenn nag xas biyee rabbi waktafaytu bihi te itam doyloo naa ko beneen bi mu ñëwaat ne walastu raadiya gayra al ilmi wa diini dara du ma satisfaire lu may lu diine loolu dong nga ma saf